ndax yàlla naatal xar bi noo ngi dagaan ci musta mi nekk marwata ak safa ak aqiyam di musta ndax yàlla naatal xar bi ak aqi mboole may rakam aqi seen baaya ñoom ak aqi cheikh ya bambam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 mbooloo mi ñuy seetaan ñëpp di jiital ci nuyoo beeg ziar bi mu Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di ñaanal mbooloom njaboot Sëriñ Tuubaa gi yëpp yàlla na yàlla guddal seen fan wéral seen i cër ah, ñun nag ñoo ngi bàyyeekoo fële ca soow ah, ñun waa Makar Maxlaax ñun yàlla dogal na ñun ñun ñooy waa kuréel Sëriñ Abdou Karim Mbàkke mu Sëriñ Fallu borom Makar Maxlaax soow la ñu bàyyeekoo ñun ñëpp ñëw dundal fii bis bi ci ndigalu Sëriñ Mountakha organisation bi ñoo ngi ko bokk ak euh, ak waa ndax yàlla dogal na Makar Maxlaax fii ci Touba euh, sëñ Abdou Karim dafa am kuréel yoo xam ne ñoom lañ ànd ak ñoom ci bis bi mu doon ay kuréel takku bañ fi ne bañ fi ñëwee na kuréel bu ci ne kenn ku ci nekk barkeelu nga waaye wax dëgg yàlla njaage bi am na solo njaange bi yéeme na lool durus bi tamit ñu doon def ni yàlla dogal na it am nañ ci yëg bu wér waaw li ñu doon jàng yëpp am nañ ci yëg gu bu wér a wér loolu moom dama ci am mbégte ndax jëmi sëñ Abdou Karim ba mu ko yëgee dafa taal lu tolloog ñaar téeméeri la taalu ne gannaaw sëñ Muntaxa moo woote te mbooloo dafiy daje moom sëñ Abdou Karim Mbàkke mu toggulu ñaar téeméeri mbaraan boole kook ay naanu boole kook ay boisson lépp loo xam ne ne bis laaj na ko rek sëñ Abdou Karim Mbàkke def na ko ci bis bi kon it ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd wér. waaw maanaam lii ñun suñu xel dal na ci ndax ku xool mbas yi fu mu toll nii Cheikh Mouhamadul Mountakha jël responsabilité am woote mbo mbooloo bu toll nii lii dafa doy waar yéeme na kon am na lu muy feeñal la muy feeñal nag moo ngi suñu kanam ndax àdduna bi yëpp ñoo ngi seetaan àdduna bi yëpp ñoo ngi seetaan. kon maa leen di wax ne li wàccaayu màggal Touba la ndax li ko ko gis rek fexeel day dem ci màggal Touba ndax sànq ba ma génn di yeslu ba dugg ci mbedd yi màggal Touba rek la ma jox màggal Touba rek mbedd boo dugg rek xat na waaw loolu nag moom li lancement la ci màggal Touba kon ñoo ngi ñaan yàlla euh, yàlla nañu fekkee màggal gi ak jàmm yàlla def na ci wér ak kattan may ñu xewal bañ mun cee jëfal suñ mu taxaalu bare bare maa ngi tudd Souleymane Ndiaye.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 ku ñàkk yaay day nàmp maam buural taboot nu ngal la daam roggi nu mboolem xërnu wi bal doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mën taboot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi dafa murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo toll dolli sunna ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am di Musa tabax jumaa yi Musa bam toll ne marwata ak ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem murid yëpp ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal gooy bu seenee diyaani booyi sarax nu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiifi xiif